baa yéen a ngi kóol am naa leen de ak saari privé yi waaye ngi noos alors tey nag sama dama bëggoon tey ñu xaw a waxtaan tuuti ah ginnaaw bi nga xamee ni que organisé naa fi soirée soirée privée mu def fi bës bu rëy mu def coow lu bari mu bëggoon ñu ñëwaat ci soirée yeah parce que soirée bi mën bës bi fi mu yegg coow li fi mu yegg daf ma sax dépassé parce que xaaruma si woon lii yépp lii yépp xaaruma ko si woon parce que pour man ku nekk am nga lu la doy pour man genre ñi soirée bi ñor dinañ ñëw ñi soirée bi ñorul dinañ toog def ñoom li nga xamante ne moo leen ñor man noonu laa gisee woon xëy na ak ñoom yéen ni ngeen gisee ñenn ñi bokkut léegi ñu ñëw si soirée bi ak commentaire yi sama gars yi ñu ne Rambo dafa def dafa def soirée privée entre deux cent mille waaw soo gisee lam ca sol moom moom affiche ba lu fay am gars yi ñëw si commentaire yi ñu ñeme yàlla ñi ñi nga xamante ñoom moom seen ëllëg laa ñoom laa gën a yërëm seen ëllëg ka man sama bopp man mi ñuy waxal parce que ñeme yàlla mënul weesu nga gis doomu jàmm xamuloo foto ba mu def lan la ci jublu xamuloo lan moo tax mu def foto bi nga jógee fee tëll commencé waaw rangu jagala rangu wey wey wey foto bii mu def nangam ak li ngay wax sax gëmuloo ko mais yow bëgg nga def nee nga wareef wareef bi mooy lan faaw nga kebatu nekk rangu li muy def lii rangu alors que rangu li muy def sa raq jigéen wala sa yaay wala sa taawu yaay wala sa caat baa sa maam mu ngi def lu piiram yow nag kenn waxaaleew la ngeen jël doomu jàmm mu tëgg soirée man sama liggéey laa nekk yéen wéral di mënul weesu nekk nit ki nekk ci liggéeyam nekk tëgg soiréem nekk ci biir liggéeyam def affiche ba ko war nekk si digg liggéeyam yéen ngeen jël ko bëgg ko indi ay waxi ñaaw yu kenn xamul am na moo boo xamante ni dangeen ma koy faral di di jiiñ fépp mooy moowu cagal du ma ko bañ ndax caga dafa jiitu sama judd te ragal naa ne damay dem ba ko fi moom boobu duma ko bañ cagal parce que cagala cagala boo xamante ni alhamdulilah du kenn ci yéen ku ma si mus a waxaalee cent franc boo xamante ni du kenn ci yéen ku fekk góor sama kaw alors caga bi moom ban genre cagala aha day fotow mais sama yaram la sama yaram du seen yaram lakkum diine wal yat diini yam leen kenn nekk ci diineem ak la mu bëgg a def yam leen ci kenn ku ci nekk yéen man lijjantiwuma leen sax tey jii su ma defee direct bi c'est parce que am naa ñu may message ñoo xam ni que nawloo nañu ma man mi ngeen di jiñ ne ko cagalaa nawloo nañ ma man nawloo naa leen ñoom ñoo tax ma def lii yéen benn soirée amuloo entrée deux cent mille toogal maandul mais non nga ne yow da nga jullite nga ne yow ya, da ngay wax pour askan wi dégg la wala da ngay waxal pour yàlla nga ne ah jël rangu wax ju ñaaw ju nekk nga sëf ko rangu yow yow yow yow moomu toog rek jël sa temps déjà di wax rangu dafa bon rangu càngana rangu lii wag lii yow bu la yàlla àtte woon yow sa wàll jëmu bopp nga fàtte kaawu rangu ndax yaa ma ëppi bàkkaar fuuf ak fob alors sénégal da ngeen seytaane ñenn ñi du ñëpp nag mais ñenn ñi dañu seytaane dañu faux dañu hypocrite adduna bi lan la jeexul am ngeen seen problème gars yaa ngi fi di dajji kër jàmbur yi bellee da ngi nii jëni di dee kenn xamul lan moo nekk di rey jëni si biir ndox bi parce que man ci li ma nekk laa nekk aw ma jotu toog fenn naan kii daa fotow def istiline kii daa fotowu def aw ma ko si sama liggéey laa nekk sama liggéey man rango lu mu laaj ma jox ko ko boo leen fi nekkee nag bëgg ma sonal ak ay rango day def lii rango day def lii man mën naa ko damay dem dagg sama biir toog dëkk ba ma saf te su boobaa li ngeen di gis moo nar moo leen gën a nar a naqari que lii ngeen gis parce que gisoo leen fi dara fii lan moo fi ñor bañ koy màcc yéen sénégalais yéen da ngeen a bëgg a jël taat def ko def ko foo xamante ni taat yeggu fa guddi yi ñu toll taat moo gën a yomb loo mun ci am Sénégal fi ngeen bëgg a aj taat taat yeggul foofu yéen silib ngeen tëb baa ngeen tëb istrin ngeen tëb ah taat mooy lan lan mooy taat what the lan mooy taat neen kii sol na silib def li kii sol na silib ah na lii rangu def na lii ngeen fàtte programme yeeg dëkk beeg lépp ngeen topp rangu kërëb kërëb kërëb te yéen dëkk bi sax bu ñu waxantee dëkk dëkk dëkk bi dëkk bi dafa war a mën a neex parce que euh, fii la gars yi di nekk ay waxu politique lañ ñuy wax ñii li ñu faral di wax rey nañu fee nit yooyu noonu des fois day neex kenn ku mel ni rangu ngeen am ko di ambiance di felfelaale comme moo xew dindi seen stress dund loo fekkee ndax fii na ma bàyyi ki may woo ba ma dama nekk ci direct saluwa benn xale bu ma tojal fu mu toll nii bu ma kenn woo akay wasalaam dëkk bi war naa war a mun a neex ñuy def suñu mbaxalu ngoon ñu ni muut di def suñuy dëxit di dëbb kaani paccal limon ku bëgg a felfelaale felfelaale ku bëgg leneen dem ca leneen na ku ne nekk ca la mu nekk bi wii rangu kërëb kërëb rangu da koy yàq rangu lan la fi mun a yàq rangu berki dee moo njaay rangu lan la mun a yàq Sénégal lan lan au moins dinaa jël nit ñi ñu nekk si rangu waaw soirée bi nan lay demee ñi nga xamante ni ñoom na leen ñoom ñu dund lu ñu fekkee keneen ku bëgg a dund leneen nga dem feneen dund leneen waaye soirée bi kërëb kërëb yéen wax ngeen a wax a wax ba soirée bi am na li ngeen doon wax aha wax ji man est-ce que dañ koy bind sama jëb yi man sama sama dugg naa gën a leer seen bos yéen man gawuma yéen seen dugg àjjana ñenn ñi boobu gawuma seen dugg àjjana sama bos man moo ma gën a wóor ko seen bos ndax maandu woo leen moo tax ma ne leen dama leen di liggéeyal chaque jour benn baakaar ngeen jël dix taf ma ko suñu boroom jël sama bos wekk ko seen diis yi ngeen am onze xanaa foofu toj xanaa foofu toj mais ku nekk am raam indi loolu du boo leen bëggee débat da ngeen di wëri ji looleen leen débat dëkk bugguma benn coow ndir yàlla bu ma kenn woo bàyyi leen noo dama nekk sama direct bii di wax ak samay nit nekk sama jaam bul ma yàqal damay wax waa kay bu loolu weesoo ele leen defoon ngeen dem de ngeen dem abonné ci moom di ko seetaan te naan xale bi yow ma sax xale bi moo ma neex mais comme Rangou def na ko Rangou si dëkk bi la nekk ah Rangou moom du nit waru ko def balaa maa dee ñii naan fàttalikul ëllëg dangay am jëkkër dangay am doom mais lan mooy suuraale ëllëg bu bari day tax nga gaaw a dee ma waxati ko dund leen loo leen fekkee dund leen loo fekkee fii benn yoon lañuy dund ku dee dem de te ragal yab yàlla la ragal yépp yàlla la fii ku dee dem benn yoon la dund dund leen loo leen fekkee rangu dafa bon rangu caga la aha rangu na ko waa bàyyi leen koog yàlla kii moom ëllëg bu deewee safara la jëm man maa lay romb nii daagu dugg àjjana yow nga des sama ginnaaw ndax lan ba rangu dugalee ay photo maandu woon mais Sénégal ba pare nit ñi naa fekk mais c'est quoi ça mais non est-ce que vraiment lii man Sénégal la mel man ay ay nekk fii rango ëllëg dangay am doom dangay kii sama vie la sama vie la waaw da ëllëg damay am jëkkër am doom man soxlawuma benn góoru waxkat man ëllëg muy nekk sama jëkkër di ma fàttali naan ma ay lii non non oh non sama doom sama jëkkër seen ngañ newu ci ëllëg aha day ñëw du ñëw seen ngañ newu ci oh mais bàyyi leen ma oh non waaye c'est Sénégal Sénégal oh Sénégal oh ci lu gën a metti nag nga bàyyi ma noppi ndax su ma waxee rek damay wax lu ëpp te bëgguma wax lu ëpp ngeen amee ma amee ràngu ku nekk naan ràngu lii ràngu lii ràngu ràngu animatrice la woon alors ba ma ca tollee def naa ko mel bi ma tollee ci animé nekk si télé yi ba ma tollee def naa ko su ma waree écarté përie jël beneen niveau dama koy def meen yaa su ma waree yéeg damay yéeg man seen yii yëpp ngeen def man ragaluma loolu tiituma loolu man yeah loolu ragaluma ko what's up yeah yooyu seen yooyu seen dara gis nga commentaire yi boo leen nekkee di wax ci commentaire yi su may liir ay ree may jàpp parce que Sénégal yëpp non yéen yéen yéen da ngeen a mën a dugal nit da ngeen a mën a dugal nit toogee nii yéen kaa bi leen gën a saf rek mooy kaa boo leen jambee nit ki dugal nit ki yàq ko jambate ko ne kuy togg ceeb bu xonq baa suppu kànje yéen loolu ngeen bëgg toog di yàq nit kaa débat yee yàq nit wee raagu sa si raagu sa wee wax leen ñu jéem def organiser suñu benn mbaxalu ngoon xam nga xale felfelaale yi waa famille Zer ñëpp daanu si ñu def suñu dëxin woo waa seng-seng ñu tëggal ñu lu ni muut dëkk bi dafa war di neex mais yéen daal dëkk bu neexee débat la aha politique sànnante nañuy xeer diw jam na diw diw ak doon xeex aha moo waay xam naa nag dama leen di bàyyi parce que man damaa bu xaw a xam nga wax nag wax moom yombul quoi wax wax yombul de waaye képp koo xamante ne rek yaa ngi ubbi sa lii di ubbi sa lii rek di ko jëmale si raam yàlla na ay gaynde maat yàlla na ay gaynde koj fu àll bu kenn newul rek yéen di leen xosi di leen matt di leen lekk kenn par kenn sama noonu privé yi <laughs> sama noonu noonu Instagram yi loolu waa àdduna bi rek xale yi ba pare xale yi ak ñoo foofu xale yi dem fee si commentaire yi waxal la rangu kay kërëb kërëb saaga la wàññeeku tourné ñëw ne la dama laa bëgg danga maa neex ay rangu da ngeen a foo beneen yoon si yeneen i direct foofa toj am na ay bagages yu bëree bëri nag yoo xamante ne war nañ ci wax te dinañ ci wax Rangou defu fi dara lu aay woyu wallu ba leen ma leneen wax leen leneen wax leen leneen fàtte leen ma man def leen ma comme awa la pël ba waxoon def leen ma comme awa awa <laughs> foofa tàj ciao sama gars yi nekk leen si jàmm bisu naa leen bëgg naa leen yéen ñépp bye bye bisous